salaamaaleykum wa rahmatullahi alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag tey dañoo ñëw fii ci lycée bu Tivaouane génn di dox daje xale yi ñuy kaas di yooxu di wax góor jigéen du fi am góor jigéen du fi am mbokk yi nag ñun xamuñu exactement lan moo xew waaye bi ñu demee foofu gis xale yi ànd nañu ñoom ba fi nga xamante ni mooy inspection fi nga xamante ni ñooy seen i kilifa bu ñu jógee foofu ñu ànd ak ñoom dem mairie seeti ki nga xamante ni mooy le premier Euh, adjoint au maire samba Diagne waxtan ak mom set nañ tamit xalé yi nga xamanteni ñom poser nañ leen ay questions. 17